waaw ñoo ko gisandoo le protocole de la gendarmerie en direct c'est la président Diomaye Faye mi ngoog kon mel na jamono yi agsi nañ fi nga xamante ne rek mooy kër Bassirou Diomaye fay ngir rek mën ko sécuriser yéen leen gis na mi ngoog kon takk der yi jamono yi ña ngay rek yokk kaaraange ki nga xamante ne moom mooy cinquième président wu Sénégal bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey jii ci 24 mars 2024 mu mel kon Senegal daal dinay am njiitu réew bu bees mu tudd Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon mi ngoog takk der yi jamono yi ña ngi koy rek yokk sécurité ngir rek kaaraangeem gën a mun a doolewu loolu la ñu gis kon yéen a gis gendarmerie jamono yi ña fa ngir rek daal di koy rek mun a comme moom rek moom moo nekk nouveau président Sénégal